sëriñ Alioune Seck sëriñ Alioune Seck mi gane àdduna ci atum 1867 ci dëkk bii di Cekkeen Cekkeen nag mi ci région de Kaffrine ci wetu dëkk bii di Nganda sëriñ Alioune Seck waajuram wu góor mooy sëriñ Fodé Alioune Seck ak soxna Yacine Boy Cissé sëriñ Alioune Seck ñii la bokkal soxna yasine booy Cissé mi waajuram wu jigéen muy soxna Yacine Seck ak sëriñ Omar Seck sëriñ Alioune sekk bi mu matee dal lii di alxuraanul karim waajuram wi di sëriñ Alioune foo déggee Seck moo ko jàngal alxuraan ci cekkeen ba mu bind lii di kaamil bi ci wàllu njàngum xam-xam jaar na ci ku ñuy wax sëriñ Bassine Mboxe sàll sëriñ Bassine Mboxe sàll mii nag ak Ahmadou bàmb sàll mi ñu duppee sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñoo bokk benn waajur wu góor moom nag mi ngi woon ci dëkk bu ñuy wax Faas ci Gàmbi juróom benni at la fa sëriñ Alioune Seck def mu ñibbisiwaat nag ci ay mbokkam ginnaaw bu mu noppee lii di am njàngam ñëwaat ci dëkk bu ñuy wax kër Mor Ali soriwul dara cekkeen gi nga xam ni fa la ganee àdduna ñu sampal ko fa kër boole kook soxna suñuy wax soxna Faati Amina sekk sëriñ bi def fa ab diir ba fa soxna si ngir wéyalaat sàkkum xam-xamam ci la demaat ci dëkk bu ñuy wax barñi ci diiwaanu Ndakaaru seetsiwaat fa boroom xam-xam bu ñuy wax Sëriñ Ceerno Yoro Njaay ñetti at la def Bargny ngir sàkku waat lii di xam-xam bu gën a kawe bi mu amoon bi muy dem àndoon naag doomu baayam yu bari ngir yóbbu leen ñu sàkku xam-xam ne moom waaye ñooña ñu ci ëpp ñibbisi waatuñ fa lañ des kon mën nañoo wax ne cekkeen yi nekk ci diggante ndakaaru ak barñi doomu baayu Seydina Alioune Seck mii lañ Seydina Alioune Seck jógewaat nag foofu nga xam ne ni moom mooy ndakaaru ci dëkk boobu di ñi ñëwaat nag ci Saalum gi nga xam ne ni fi la cosaanoo mu tàmbalee nag sañc ay dëkk kon ci atu 1900 la pare lii dim njàng mu sanc nag dëkk bu ñuy wax ba nekk fa ak lenn ci ay doomu baayam ndax moom teeloon nañoo xam ne daal nit ku ràññeeku la ni mu meloon jafe woon na lool ñu gis saalum saalum bu nuy mel ca jamono jooja moom Seydina Alioune Seck leeruk Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim tàmbali nag di ko feeñ mu mel na lu tàggoog sagoom duutu nelaw ba yandoor su bëccëgee du yendoor lu mu xam ngir bëgg a gis leer gi nekk ci kanamam te xamul fan la nekk mu mel na nag lu tàggook sagoom muy def fu mu yaakaar ne fa la leer gi nekk mu soluwu dàllam wala mu nemmeeku ko ba dem ba gis loola dem na ci fu ne nag ci biir réew mi ak bitim réew ngir di wër leerug sëriñ Tuubaa seexul xaddiim waaye taxul nag mu xam turu sëriñ Tuubaa seexul xaddiim taxul mu xam leer gi fan lay jóge yam na fi ci biir réew mi ba bitim réew fu ne di wër ku tedd ki mu am bis mu dégg benn boroomu xam-xam ku ñuy ziyaar ci réew mu ñuy wax siraale woon mu dem fa ngir teg ko si ku baax ki di sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ booba ñu ngi ko doon wooye sëriñ karamoxo kuttuba ci siraale woon la nekkoon seydina Alioune Seck dem ba siraale woon ngir seeti ku baax kooku waaye bi mu eggee ba jox ko àddiyaam ba sëriñ bi téye ko la xam ne daal wuute nag leer gi muy wër mu fanaan asamaan set mu tàggoo ngir ñibbisiwaat Sénégal bi muy ñëw indaale na guro gu bari ca ngan googa bi mu ñëwee nag mu jox ko ñenn ci mag ñi woon ci dëkk boobu di ba mag ña daal wala ñenn ca ndaw ña di ko ree naan sëriñ bi daal day commerce waaye kenn xamul lu mu bëgg Seydina Alioune sekk mu yëgaat ne am na beneen sëriñ bu nekk Ginne bu ñuy ziyaar mu dem fa teg ko sëriñ Touba Seexul Xaddiim sëriñ boobu mu ngi woon ci Ginne Seexu Ture maam la woon itam ci Seexu Ture moom mi ngi doon wuyoo sëriñ Abobakrin Touré sëriñ Abobakrin Touré mii bi ko Seydina Alioune Seck seetee ba jox ko àddiyaam mu nangu ko la xam ne daal ba nëga ni wuute nag ku baax ki mii wër di sëriñ Touba Seexul Xadiim mu ñibbisiwaat Sénégal nekkaat fi nag di wër sëriñ Touba Seexul Xadiim lii lépp nag ci atum 1900 la jàpp 1902 ci atum 1902 bi sëriñ Touba Seexul Xaddim jóge ci géej gi ba ñibbisi nekk nag ci diggante daaru salaam ak fi nga xam ne ni moom mooy daaru marnaan ci la amee nag ci 1903 ku ñuy wax sëriñ Alioune Guèye Ramata sëriñ Alioune Guèye Ramata mii nag moo gis Seexul Xaddim ci bi mu ñëwee ci géej gi mu doon dox nag doon dem Gàmbi ci la jaare nag ci dëkk bi di Tayba gi nga xam ne nii kii di Seydina Alioune Seck ma nga fa mu jaar fa doon ziyaare Seydina Alioune Seck mii bi mu nee ko jàpp loxo ci la ko Seydina Alioune Seck mii ne leer gi may wër de xetam mi may xeeñ ci sa jëmm ji sonn naa lool nag ngir gis ko ci la ko sëriñ Alioune Guèye Ramata mii ne nuyu naa ku ñuy wax Moodu Bamba Gabon la nekkoon ñibbisi na waaye jamono ji may wax ak yow de tubaab bi tegaat na ko loxo ba mi ngi gànnaar Seydina Alioune Seck ne ko noo mën a def ba ma gis ko laa soxla est-ce que danga ma ko mën a wan fi mu nekk ci gànnaar Serigne Alioune Gueye Ramata ne ko waaw waaw ci la Serigne bi nag waaj wàccaay bu gaaw ànd ak juróom-ñaari nit ngir ñu dem ci gànnaar ngir mu gis sëriñ tuuba seexul xadiim ci dëkk bu ñuy wax sarsaara ci gànnaar la fekk ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadiim bi muy dem yóbbaale na àdde yu takkoo takku ràññee nañ ca itim lii di gerte goo xam ne nii aw jiwu la ngir bëggoon sëriñ bi ñaanal ko ca ba mu eggee dagana bay jéggi lii di dex gi la seexul xaddiim xëy yónni seex ma sàmba mbàkke ne ko demal gàttandul ma na alin sekk moom muy ñëw bi mu jéggee dex gi ba dugg ci wàllu gànnaar la ko ma Massamba nuyu ne ko yow a sëriñ Alioune Seck mu ne ko waaw mu ne ko ku baax ki moo ne naa la gàttandoo mu ne ko kooku mooy kan mu ne ko seexul xaddiim Seydina Alioune Seck ne ko est-ce que jaawale ndax man ki may wër yëgul ne maa ngi ñëw te binduma ko lettre te tàggoowuma te yónniwuma woon ndaw ngir mu xam ne maa ngi ñëw Cheikh Massamba ne ko man daal loolu la ma ku baax ki wax ñu ànd dem fekk sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk boobu di sarsaara bi ñu eggee bañ joxante loxo ñu nuyoo sëriñ tubaa seexul xaddiim dane ko Seydina Alioune Seck wàlli wu saalum Seydina Alioune Seck ne ko Alioune sekk laa tudd sëriñ tubaa baamtu baat boobu ba muy ñetti yoon mu xamal ne ko ne suñ boroom de ginnaaw bi nga ma joxee loxo xamal na ma ne sa cër yi musta mooy yàlla moo tax ñu xam ne wàlliwu nga ci saalum Seydina Alioune sekk ne ko ndokk yàlla ndax lii de yaa ma ko xamal man mi ci sama bopp xaw ma woon na sama cir yi musuñoo mooy yàlla seexul xaddiim ne ko addi takku na lool waaye gerte gi nga indaale loo ci jublu mu ne ko nawet bi de léeg-léeg mu am léeg-léeg du am waaye dama bëgg nag nga ñaanal ñu ba saa su ne ñun nawet ñu di ko am kon mën nañoo jor ne li tax bu réew mépp mankeeb nawet saalum moom nawetam di gën di boye ka jolli mën nañoo wax ne gerte googee si naalun sekk yóbbaale woon ca sarsaara ngir di sàkku ci seexul xaddim mu ñaanal ko ca jiwu wa loolee moom lu nawet manki manki saalum moom nawetam macha allah la ñuy wax kon képp ku nekkub saalum saalum war nga sant sëñ Alioune Seck ci fàggu googee la fàggu lool mu def fa ay fan sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñaanal ko ne ko delluwaatal Sénégal toog xaar ma 1907 sëriñ Tuubaa ñibbisi ci fi nga xam ne ni moom mooy gànnaar ñu def ko résidence surveillée ca yéen Seydina Alioune sekk daana ko fa fekk di ko yit ay haddiyaam bi mu nekkee njaareem itam daana ko fa fekk di ko yit ay haddiyaam njaareem googu itam foofu la Seydina Alioune sekk jote lii di ngërëmam Seydina Alioune sekk nag sanc na ay dëkk yu baree bari ñu ràññee ci rek dëkk bii mu njëkk a sanc di ba laata muy gis Seexul Xaddim ci atum 1900 sanc na yidda murit mi ci frontière Gambie ak Sénégal ci 1905 la ko sanc ci ndigalul sëriñ Touba Seexul Xaddim sanc na itim dëkk bu ñuy wax daarul xuddoos moom itam mi ci wetu frontière bi ci 1907 la sanc dëkk boobu sanc na itim dëkk bu ñuy wax daaru xuddoos panaaf ci atu 1906 daaru panaaf googu tool bi mujjee bayal seexul xaddim jox ko àddiya ci dëkk boobu la ko bayee sanc na itam dëkk bu ñuy wax daaru puley daaru puley nag mi ngi ci suufus bi ci atu 1907 sanc na itam dëkk bu ñuy wax kóofa ci 1912 sanc na itam dëkk bu ñuy wax daaru salaam ñu duppee ko daaru salaam gi nekk tuubaa ci ndigalul cheikh dul Moustapha Mbacke ci atum 1928 sanc na itam ay dëkk yu baree bare bari ci ndigalam ngir mu jagleel ko taalibeem yi ko topp ñu féete fa dëkk yooyu néexuta lim ci rajo Seydina Alioune gas na ñaar fukki teen ak ñeent ci saalum ngir taalibe mi wala ñi ko yaakaar wala saalum-saalum yi mën a naanum ndox ca jamono joojo ndax forage yombul woon dëkk yooyu yépp itam ci ndigalul seexul xaddiim la leen sanc mu nekk fay liggéey di tarbiya donga yi ngir xemmeem loo leen seexul xaddiim Seydina alin Seck doomu soxna yasin booy Cissé ak alin foo Fodé Seck ñu gënoon koo xam ci Seydina Alioune Seck mi seexul xaddim daa wooyee walliwu Saloum jëmm ji di Seydina Alioune Seck waxtaan wu mujjee def ak njabootam ab dénkaane la def ak ñoom laata muy ñibbi fekki seexul xaddim mu xamal na leen maa ngi waaju tukki tukki bu yàgg waaye fa ma jëm ñeme naa fa ngir fekki gu may fekki seexul xaddim ak itam muy néew ak a duma ko fa yóbbaale su ngeen ma fa fekk seet du ngeen wéet ndax da ngeen am wéttal ñama fa jiitu itam duñu wéet ndax am na ku leen di ñaanal bu ëllëgee nag lu ngeen gis lu dul sëriñ tuubaa wala am njàngaleem ay caaxaan rekk la bu leen ko geestu te bu leen ko xool man ngeen a jóg dem bi ñu ñëwaatee lañ fekk Seydina Alioune sekk wuy ju suñu boroom mi ngi génn àdduna nag bisub àllarba fukki fan ak juróom ñett ci weeru gàmmu ci atum 1360 ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak juróom ñett ci weeru gàmmu ci atum 1360 ci gàddaay gi ci dëkku boppam bi nga xam ne nii seex Moodu Moustapha moo ko joxoon ndigal ngir mu sanc ko ci atum 1928 di Daaru Salaam Wanaar dëppook mercredi 16 avril 1941 mercredi 16 avril 1941 Seydina Alioune Seck dem ka seexul xadim daa wooye wàlliwu Saalum moom Seydina Alioune Seck ci Daaru ganaar googu lañ ko denc tim ginnaaw bu ko feebar bu yàggul dara tëralee feebar boobu tim moo ko jëlee ci àdduna bi kii di Seydina Alioune Seck itam njabootug sëriñ Touba Seexul Xaddim gi joxoon nañ ko cër ba kenn ku ne daana ko ñaanloo wala nga dem di ko seeti ki ko mujjee seeti ci doomu Seexul Xaddim yi mooy Cheikh Abdou Lahad Mbacke ginnaaw bi mu làqoo mu seeti woon njaboot gi keroog Cheikh Abdou Lahad Mbacke bi muy dem ci Daaru Salaam wanaar googu sëriñ Cheikh Colle Mbacke la àndaloon ak sëriñ Hamsatu Mbacke bu maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke bi mu eggee ba njaboot gi teeru ko ba mu ziyaare barabu Seydina Alioune Seck ba pare ñu ne ko yendul Mbacke Balla mu ne du yendu xelam dafa nekkoon rek ci ñëw seet si Seydina Alioune Seck am lu mu fi doon jël si loolu rek moo fi indi woon kon nag munta yendu loolu rek day firndeel ne Seydina Alioune Seck mi ku njabootug seexul xaddim gi bàyyi woon xel la moom Seydina Alioune Seck ay xalifaam nii la tëddee ci atum 1941 ca 16 avril ba ki ko njëkk a wuutu mooy Serigne Mouhamadou Lamine Seck ba le 19 mars 1960 19 mars 1960 ñaareelu xalifaam mooy Serigne Abou Diama Seck moo ko wuutu ba ci mois de décembre 1980 ci mois de décembre 1980 ñetteelu xalifaam bi ko wuutu mooy Serigne Yunusa Seck ba 26 janvier 1982 26 janvier 1982 ñeenteelu xalifaam bi toog toogaayam mooy sëriñ El Hadji Yacine Seck ba 30 décembre 1998 30 décembre 1998 la juróomeelu xalifaam bi toog di sëriñ El Hadji Bassirou Seck ba le 29 février 1999 29 février 1999 la juróom-benneelu xalifaam toog di sëriñ Abdourahmane Seck ba 6 mai 2003 6 mai 2003. Touba la juróom-ñaareelu xalifaam toog di Serigne Moussa Diama Seck ba le 7 octobre 2005 le 7 octobre 2005 ba nëgëni nag la juróom-ñetteelu xalifaam bi toog tim caatam mu tudde ko ku tedd ki di Serigne Touba Seexul Xadim waaye Seydina Alioune Seck wormaal gum wormaaloon Serigne Touba bugguloon aw turam kenn di ko wax di ko sàllawlu wa ilaa nga koy sàggane wa ilaa nga koy foye moo tax doomam ji nga xam ne moom la tudde Serigne Touba Seexul Xadim daawu ko wooye xaadim daawu ko wooyee bàmba daawu ko wooyee la bëggoon ñu di ko wooyee ngir wolomaa rek ca mujj tedd jooju sëriñ tubaa seexul xaddiim moo tax sëriñ xawsu sekk moo ne juróom-ñetteelu xalifa e kii di sëriñ Alioune Seck moo fi toog jamono jii ci 7 octobre 2005 ba nëgëni ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax mu taxawu waajuram wa taxawu waa Saalum suñ borom fay ko yéene ja waajuram amoon ba duppeeku ki nga xam ne ni moom la ko duppee muy yaakaaram di sëriñ Touba Seexul Xaddiim kii di Seydina Alioune Seck li waral màggalam gi bindal na seexul xaddim moom Seydina Alioune Seck ay kaamile alxuraan yu takkoo takku ba néexuta lim waaye da ci am benn kaamil boo xam ne ni kaamil bu ràññeeku la ci mbind mi bindal seexul xaddim ci ay kaamil te it mooy kaamil bi mujjee bindal seexul xaddim kaamil boobu ci njàpp mu tooy xëpp la ko binde ba ni kaamil bi egge ndax moom day def heure bu jàppee di bind bu demee ba njàpp mu fendi mu dem jàppaat noonu la binde kaamil bi ba mu egg mu jébbal ko sëriñ tuuba seexul xaddim addiya sëriñ tuuba yéem lool seydina Alioune Seck ci mbind moomu mu ko bindal kaamil bi kaamil boobu itam seexul xaddim da ko joxaat addiya seydina Alioune sekk boole kook mu jot ngërëmam ci la ko ca defale nag ay mbóot yu rëy ca kaamil boobee ngir ku ko gis wala nga jàng ca seydina Alioune sekk jóge njaareem ñëwaat ci dëkkam yi mu sancoon wax ne loolu itam ci weeru gàmmu la amoon ñu gàmmu ba ca suba ga seydina Alioune Seck dajaleeg njabootam xamal ne day gàmmuwaat ndax seydina jibril ñëw na fa biig di ko xamal ne kaamil bi la seexul xadiim jox de mbóot yu rëy mi ngi ci ba ku ko gis wala mu téye ko wala mu jàng ca yowmal xiyaam mën naa mucc cig laaj seydina Alioune Seck loolu la doon waxuk njabootam biñ gàmmoo ba ci suba ga mu jàppaat nag bis yooyu di ko màggal ba fukki fan yaag juróom ñett ci weeru gàmmu nga xam ne saa su ne dana rey ay nag ngir sant ci cant googee ko seydina jibril waxe ca itam ci la daa sant nag cant gu mag gi nakate itam ci bis boobu itam ci la war a génn lii di àdduna def na ko ay at yu takkoo takku di màggalal boppam di santal boppam sëriñ tuubaa ci ngërëm li mu ko jox kon ak màggalam ñaar mooy sabab bis bi mu jotee ngërëm te seydina jibril waxoon ko ne na nga sant ci fukki fan yaak juróom ñett bis boobu itam ci la génn àdduna benn bi moom daana defal boppam muy fukki fan yaak juróom ñett di kaamil ba bi ci des itam ginnaaw gi lañ ko ci dolli di fukki fan yeeg juróom-ñett di bis bi mu génnee àdduna kon lii mooy màggalug Seydina Alioune Seck gi ñuy amal ci Daaru Salaam gi nga xam ne nii Cheikh Modou Moustapha moo ko jox ndigal mu sanc ko ci atum 1928 te génnee fa àdduna teg njabootam wala ay xalifaam féete fa ka Seexul Xadim daa wooye wàlliwu Saalum yàlla na ñu ko yàlla fayal ca doole yi yéene jooje mu amoon ca kaamil ga ba jot ca ngërëm te